ñu tàmbalee de collecte de parrainage yi coalition Benno Bokk Yaakaar bu Ziguinchor ñoo ngi amagum 27 900 signatures ci loolu délégué régional bi di féliciter responsable politique yi ci liggéey bu am solo bi ñu def si ñetti département yi. tey nag bu ñu demee ba xayma loo xam ne moom la waa Bignona joxe waa Ziguinchor joxe ko parce que waa Oussouye suba lay jot seen fiche bu ñu ko xaymaa toll nañu si 27 900 parrains euh, compte tenu yoo xam ne dinaa ko jot bu ma demee Boutouba ak naka noonu bu ma demee Niassia. ay ay yeneen responsable yoo xam ne ñu ngi def aussi ay correction seen i fiche am naa yaakaar ne dinañ tourner autour de trente mille ba du ko weer boo xam ne dinañ ko joxee dans un premier temps mu desee ñu encore notre objectif de quarante cinq mille parce que soixante quinze mille yi il faut ñu atteindre ko. féliciter ñëpp vraiment responsable yëpp. moom délégué régional coalition Benno Bokk Yaakaar di xamal ni dinañu wéyal liggéey bi ngir ñu mën a atteindre seeni objectif. je pense important. que euh, ñu gën a accélérer liggéey bi avant le 11 décembre fekk déjà euh, suñu set région yoo xam ne peut-être région modèle yoo xam ne jël nañ ko am nañ su suñu fiche yoo xam ne validé nañ au moins 2000 euh, bu ko defee ñu mën a atteindre le chiffre boo xam ne moom la ñu loi bi sant donc ñu am yaakaar ni que dinañ ko en tout cas dinañ si mën dinañ ko dinañ ko atteindre lu mu gën a gaawee. depuis distribution fiche de parrainage ci région bu Ziguinchor formation politique yi am nañu engagement bu mag ngir collecter signature yi pour seeni candidat